mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk mi jigéen tey lay leeral ci muuraay parce que am na ñu naan muuraay africain ñoo war a muur ibaadu moo war muur jigéen ñëpp a muur ndax yàlla dafa ne yaa ayyuhan nabiyyu qul azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يخزين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم yàlla dana yéen yonent yi wax leen seen soxna yi seen doomi jigéen ñi ak juri jigéen ñi ñu mut seen lépp bu njëkk ba ñu doon woowee seen bopp gor lu ñu génn mukk te duñu muuru xool ma te yeneen fi firi ko ci xadiis nisaa ul kaasiyaatun aawiyaatun mailaatun mumilaat ruusahunna ka asdimatul buxtil maila am ñoo xam ne dañuy jéng di jéngalaate loolu moo fi bëri mailaatun mumilaat xeesal ba weex tàll génn ci biti pour ñu tudd seen awray yi loolu dafa xaraam mailaatun mumilaat am ñoo xam ne dañuy jéng di jéngalaate na ka asdimatul buxtil maila am ñoo xam ne bu ñuy sëf seen bopp bi rek coiffure yi ñu cee def mu ngi mel ni jógu bi giléem xoolal ma yeneen bi mi ko wax ci xadis ñu wàccee bàyyi xel mbokk mi muuraay kol gi nga jël di ko teg sa bopp bi jàppale ne la farata la comme julli ni mu la waree comme koor ni mu la waree bis dina ñëw ñu tax say loxo jéng la jéggal la say borom bis boobu mu jël xalaat wa axiru dahwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu